Adama Mbengue maa ngi lay nuyu. ñoo lay fay yow. alors euh, may fàttali rek euh, yow yaay njiitu action pour les droits humains et l'amitié ADHA jamono ji daanaka am na benn rapport bu Civicus Monitor génne fësal wane ne euh, Sénégal daal dellu na ginnaaw ci li jëm ci liberté civique loolu ban jàngat nga ci am. waaw jàngat bu ñuy am moom dañuy regretter parce que en tant que d'abord sénégalais. yàggoon nañ di alerter comme nu ko yeneen euh, organisation di alerter alerte yooyu noonu nag ñuy def noonu nag pour wax ni pour jouer suñu rôle de veille et d'alerte maanaam pour ñëw gis ni que ah lii nii lu ñaaw la loo xamante ne dafay gàkkal suñu démocratie te daf ñuy def benn recul en terme de droits humains alors que le Sénégal bu ñuy wax rek moom mooy numéro un wala champion si signature euh, buy euh, ratifié wala buy signé lii di ay convention yi nga xamante ne si ak ak doomu aadama lay lay doon waaye nag buñ koy jëfee dañuy nekk dañuy reculer boo ñëwee nag si euh, rapport bu nga xamante ni publié nañ ko muy civis civiscus monitor bu le 6 décembre nga xamante ñooñ ko intitulé le pouvoir du peuple sous attaque 2023 lu muy décrire dafa bëri maanaam dafay décrire non seulement espace civique bi yu nga xamante ne ay dëkk yu bëri ñoom ñoo si nekk mais bu ñu ñëwee si Sénégal rek dañoo wax ni que Sénégal dafa reculer si lu bëri lu tax mu reculer parce que dañoo gis ni que euh, Sénégal dafay réprimer maanaam dafa euh, sa àq ak doomu aadama respecté tuñ ko si ay anam si ay point point yooyu nag mu nañ si relever d' abord euh, lii di yenn journalistes yi nga xamante ne dañ leen ñu téye tëj leen ñeneen ñi nag nekk ay opposants politiques ak yeneen yoo xamante ni daal mooy ay jumtukaay yu ñuy utiliser comme ay TikTok ak ay Facebook ak yooyu noonu yëpp internet ñu ñëw daal euh, wàññi def si benn restriction boo xamante ni ñu ñi nuñ ko war a utiliser donc buñ ko utiliser noonu. alors ndaxte rapport bi tamit wane na ne Sénégal bokkoon na ci model yi nga xam te ne daanaka ràññeeku woon na ci wàllum démocratie ci Afrique euh, de l'Ouest waaye jamono ji daal euh, daanaka amatul. waaw Sénégal nekkoon na lu nga xamante ni mooy référence. boo dee xool sax euh, euh, lii di euh, suñu commission africaine des droits de l'homme daf ñu doon cité en en tant que exemple ci droit droit de l'homme mais at yi ñu weesu rawatina deux mille vingt trois bii nii dañoo dellu ginnaaw trop ba nga xamante ni ñu bëri sax dañuy ñëw dañuy interpellé di ñu wax ah yéen de war ngeen xoolaat li wala ajusté lii te loolu noonu nag lu muy tekki moom mooy war nañu xoolaat lu bu baax. parce que tey boo nekkee ba ñëw ba nekk model ba nekk référence nga dellu ginnaaw war nga xoolaat sa bopp te lu ngay xoolaat sa bopp nekk loo xamante ni lu métti la lu ñu la wax rek nan la mooy respecté ak ak doomu aadama donc signé nga ko ratifié nga ko appliqué ko. Mhm. waaye nag bu fekkee nii da nga gis ni que ah kii lu mu wax arrangé wu ma ma tëj ko foofu noonu doy na waar bu ñu demee ba nga xamante ni dafay am lu ñu woowee ay dawlaaku yoo xamante ni dañu jige seen dëkk kii di Sénégal di dem beneen dëkk di laajte protection foofu noonu Sénégal mun nañu wax ni que xamuñu ko woon au contraire fii lañ doon ak ay demandeurs d'asile bu ñu nekk ay réfugiés fii wala ñu transité fi dem beneen dëkk mais bu ñu demee ba sénégalais di def loolu ah, loolu doy na waat trop. Mm-hmm, ndaxte rapport bi rapport mm-hmm. Covicus bii ne rek am na yeneen rapport yoo xamante nii ay yeneen structure génne nañ ko. Mm-hmm. di alerter nguur bi na leen assister leen. cest dire contre pouvoir boobu noonu nekkul nii dañu ñëw pour def lu lu kii ak yéen noonu déedéet contre pouvoir boobu noonu lenn la rek pour ñëw permettre euh, nguur bi pour mu ñëw doxal nu mu war a doxalee maanaam mu tegu si yoon loolu rek la. loolu mooy rôle organisation de des de des droits de l'homme dañuy ñëw pour ñu alerter mais nekkuñu des opposants nekkuñu leneen déedéet dañuy def seen rôle pour wax ni ah suñu rôle mooy le rôle de veille et d'alerte pour ñëw bañ lu nga xamante ni daal moom moo war a am ëllëg. mu bañ a am. ndaxte ñoo ngi wax euh, ci euh, opposition en tout cas leader de l' opposition di Ousmane Sonko emprisonnement bi waaye tamit lu jëm ci partiom bi ñu dissoudre ba ci sax taskatu xibaar yeeg euh, défenseur des droits de l'homme yi ngay wax léegi harcèlement bi ci am loolu yëpp rapport bi fësal na ko. waaw rapport yi boo ko liiree yaa ngi gis ni que TikTok dañ ko woowee ba mu am benn restriction ci ci TikTok boo xoolee internet mobile ci période manifestation ñëpp documenté nañ ko wane nañ en réalité dañ ko dafa am restriction te restriction seen rapport boo ko liiree da gis ni que c'est fait euh, intentionnellement beneen bi nag nekk leneen moom mooy euh, yenn suspension wu ay médias yu bëri yoo xamante ne dañ ko nakarlu mun nga ñëw rek xool yeneen voie de contournement yi nga xamante ne da ngay waxtaan ak ñoom bu nekkee dañoo jéggi yoon nga wax ñoom mais pas nga ñëw rek teg euh, télé wala rajo yi nga xamante ne ñoo fi nekk beneen bi mooy opposant bu wax ni muy Ousmane Sonko ñëw nañ ñëw barricade këram mais barricade boobu noonu dañoo salfaañee lu si loolu journaliste yoo xamante ni cité nañ si Pape Alé ak yeneen journaliste gis nañ fi tamit police tamit arrestation yu mu def par rapport ak défenseur des droits de l'homme d'ailleurs sax damay profité aussi seen tribune yi pour wax benn boo xamante ni bu am solo moom mooy euh, benn euh, loi boo xamante ni dafa war a défendre les défenseurs des droits de l'homme mm. parce que yeneen dëkk yu bëri ñoom am nañ ko loi bi nag euh, mooy ci ministère bi wax ñooñ koy ñaan rek loi boobu noonu ñu jàllale ko gaaw pour ñëw défendre les droits humains tamit lu weesu loolu tamit ah ñu wax tamit yeneen ak yeneen yu nga xamante ni mooy ay manifestation da ngay informer rek mais depuis lors depuis les manifestations ñaata manifestation lañ fi nangul nit ñi dañu war a exprimer wu mais bu nekkee lu ñu war a exprimer wu yooyu noonu nga tënk ko nga tëj ko mais beneen voie rek la ñu te loolu waruñu egg si loolu. noo gisee tamit li nga xam te ne mooy détenu politique yi ñoom tamit bëgg euh, voté ci euh, élection présidentielle bile ndax mën na am en tout cas lan moo ci sa jàngat. waaw luñ suñuy xóotal trop. waaye ndaxte ñun moom lu ñuy wax il faut ñu am tous les tenants et les aboutissants mais mën ñuy wax rek mooy lenn gis nga ñi nga xamante dañ leen jàpp. Euh, te jugé gu leen te nga xamante ñu jugé seen droit civique et citoyen ñooñu war nañ mën a dem voté war nañ mën a voté. <laughs> maintenant nag bu nga xamante ne ñu nga xamante ne nag euh, joueratuñu lool ñooñu mënuñu voté maintenant comme lu may wax rek instant fu mu toll nii mënuñu si xóotal trop yaatal si waaye buñ ko xoolee ba gëstu ko foofu mun nañ si gën a prononcé wu andi si ay réponses yu claires. noo gisee yi tamit dossiers yi nga xam te ne jëm na ci bavure policière yi ah, nga xam te ne dañ leen a ba tey amul suite ci wàllu boobile. waaw loolu yàgg nañ si crier yàgg nañ si wax wax nañ yàgg euh, mooy lu xewoon si depuis deux mille vingt et un ak bien avant deux mille dix huit deux mille dix neuf ces bavures là dañoo waxoon ni que euh, les autorités compétentes nañu éclairer suñu lanterne enquête yi fan la toll ñu leeral Sénégalais yi loolu la ñu war a def parce que yooyu noonu gis nga buñ ko leeralul loolu mooy tax Sénégal di reculer di regresser parce que am na ay pratiques yu bëri yoo xamante ne moo ñu fi am mais yooyu c'est contraire à la loi te yooyu daf ñuy reculer loo te loolu dafay gàkkal suñu der muy Sénégal. encore une fois on demande le l'autorité ñu am benn maanaam benn gis boo xamante ni daal dina ñëw euh, respecter ak ak yeleefu doomu aadama lépp loo xamante ni temps buñ ko war a def pour question bii ñu def ko ci question boobu noonu. Mm-hmm. mu mu am deux poids deux mesures bu nekkee des questions purement politiques yooyu ñu gaaw ko jugé bu nekkee yeneen question yoo xamante ni ça ça ça ça parle des citoyens lambda yooyu tu prends beaucoup plus de temps donc loolu dafay dafay teyal xel. Mhm. en tout cas Adama Mbengue jërëjëf may fàttali rek ne yow yaay njiitu action pour les droits humains et l'amitié di ADHA ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. di la jaajëfal di rafetlu seen liggéey